Laye salam asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi Nous nuyu bu baax di leen ziar di troisième numéro journal de l'appel édition 2024 tout de suite pour les titres foire de l'appel deuxième édition fële place Mamadou Diop euh, jaay beeg jënd bi commencé na dañ ci déglu léegi ki nga xamante ni moom mooy euh, coordonnateur bi Abdourahmane lay visite de prospection bi nga xamante ni préfet de Dakar moo ko coordonné ànd seeg waa groupement central mu nekkoon daje boo xamante ni dafay regroupé sous préfet de Cambérène ak yeneen structure yi nga xamante ni ñu ngi fi lépp si waajal appel bi di appel Seydina Limamou alayhi salaatu wasalaam groupe bâche ñu ngi waajal ñoom itam appel bi bu ñu jugee si bâche yi actuellement ñu ngi si préparatif yi jëm si restauration bi si kanam léegi dinañ ci déglu ki nga xamante ni moom mooy soxna pour terminer lancement officiel de l'association des femmes Line dinañ dem léegi seetaan élément pour plus de détails jërë ngeen nous ñu de la pouvoir, c'est le troisième et dernier numéro journal de l'appel comme nous l'avons leen dans les titres foire de l'appel deuxième édition bi am en place Mamadou Diop commencé nañu jaay beeg jënd bi si loolu dañuy le ki nga xamante ni mooy directeur de la foire internationale au micro de l'imam laay dañuy tagg njiit borom jàmma la ilaha illallah ala yajibo daya laay dañuy tagg borom jàmma la ilaha illallah ala yajibo الجليل لا إله إلا الله لا يجب ديالا قملين تولو رب الجليل لا إله إلا الله foire bi yalla dafa def daw bi ci initier ci digelu kilifa yi jek jëkkal ci imam ki nga xamanteni moy sayyidina muhammadul muhtar ibn sayyidina Seydina ak rakam imam muhammadul basir yalla yalla yàlla leeram ak cheikh Mouhamadul Amin ak sen rakk yeb lañ am dem tagu len yalla may ñu it ñom ñu yombal ñuko ñu mëna a def liggéey bi. li ko waraloon début bi moy fexen dajale njaay meex jënd mi ci benn bërepp njaay meex jënd mi ku ko wax moy appel ñepp xam nañ mbolo la muy dajé ci benn jamono ak ci benn bërepp day bo waxe ndajal rek di nga wax lek di nga wax nan di nga wax solo di nga wax summeeku dina dina amit solo ak tëdd ak nalaw ak noppalu ak it déplacement yi am digënté Yoff ak Cambérène angor kon loolu lepp am na koom boo xamante na si root ñu né nak kom gogu nañ xol nan lañ ko mëna regrouper muy jaay meex jënd loolu ci gattal mo waral foire bi kon foire bi mi ngi ni dañ ko def ngir jaay kat yi ak kat yi tamit lepp lu ñu jëfëndiko si appel bi ñu man ko am fi daw gis na nañ fa ay nak ren tamit am nañ yaakar bu baax ke nak yi dina ñëw bo xolé ceeb bi ak diwlin ak yoy yépp aussi bëgg nañ mi ngi fi yenn yi tissu yi ñi ngi fi ak yeneen ak yoo xam ne ay takkaay la pour jigéen ñi ak euh, ay toogukaay naa yeeg lépp loo xamante ni cure-dent la sax gis nañ ko si biir lu gën a mag ba lu gën a ndaw mi fi loolu lépp daal ngir gën a yokk taaru appel bi ndax yàlla def na ni appel bi taaru na ba pare lépp lu si ñëwaat da ngay jéem a yokk rek mooy fu ñu peinture la ba pare xanaa at bu jot rek nga jéem a yokk peinture ne yàlla bi mu yónnee Seydina Limaamu la lépp a taaru ba pare kon foire bi foofu lay taxawee ngir yombal mbir mi ngir jàppale ci communication bi avant l'appel, parce que gis na ni chaque année dañu am souci ci côté bobu communication bi dina yéex juk mais buñu amé appel bo xamné dina tambali 15 jours avant dawat ci bir appel bi dawat aussi 2 jours après l'appel, appel defe dinañ def une communication avant pendant et après l'appel, appel. defe côté bobu aussi côté économique bi waxna naa ko sànq dinañu mëna permettre ñun acteur économique de la communauté laayeen ñu xam wala ñu duggal suñu loxo ci li nga xamné mom lañuy moom la ñuy ci muy ndox meeg naan yeeg ustensiles yeeg yeneen ak yeneen yëpp dañ koy am aussi si wàllu tourisme religieux parce que tey lii moo gën a mën a attirer hôte boo xamante ni dafa jóge étranger bëgg a xam diine ji boo ñëwee quelque part ñu am fa ay décoration am fa ay photo am fa ay illustration si histoire Seydina Limaamu ak njabootam ak historique appel bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak njaay meex jënd mi façon yi nga fiy gis yëpp tenue africaine yi yaa ko fiy gis ak leneen loo xamante ni mën na attiré nit ki mu xam diine ji gën a mën a xemmam diine ji defe naa dama côté boobu wax nañ fa hmm, tourisme religieux bi côté économique bi hmm, côté historique bi <coughs> ak tamit côté bi nga xamante ni esthétique la mooy taar boobu nga xamante ni dina ko côté communication bi comme ni ñu ko waxee loolu yooyu yëpp la ñu jël boole ko mu nekk coppel mu nekk foire de foire internationale de l'appel du Mahdi. tax ñu ne international nag ce n'est pas osé parce que daaw ak ren yëpp gis nañ yeneen nationalité ren gis nañ fi ay guinéen yoo xamante ni dañu ñëwoon CICES dégg foiru appelu Seydina Limaamu alayhi salaatu salaam ñu mujj fi toog am na ay guinéen am na yeneen nationalité am na aussi benn allemand boo xamante ni aussi ñëw na fi ngir foire bi ngir exposé nekk tubaab moom tamit bu weextal loolu lépp it ngir wax mu duggee si cadre te kenn mënu ko si génne li Seydina Limaamu alayhi salaatu salaam daa wax ne penku dina ñëw ndijoor dina ñëw càmmoñ dina ñëw sow dina ñëw dinañu ñëw ngir gëm si wala ngir xewlu si defe naa ñi fi teew fii ñu bari ñu ñëw ngir xewlu si parce que fi ma la wax si Afrique yëpp ñu jugee nañu fa si biir Sénégal Louga am na ñu fa jugee Casamance am na ñu fa jugee ba Tiwaawan jàpp Bakel côté yooyu yëpp am na ñoo xamante ni jugee nañu fa kon wax Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam feeñ na si foire bi te kenn mënu ko si dindi

11 février 2024 euh, visite de prospection bi nga xamanteni ni groupement central préfet de Dakar ak yenen structure ñoko ko de amal dañuy déglu Daouda Mbaye vice-président groupement central au micro de Youssou cadre préparation appel bi mu amoon benn étape bu am solo ci feuille de route bi visite euh, des sites coordonnée par le euh, préfet Nous avons le préfet de Dakar euh, accompagné pour Cambérène sous-préfet bi bipolarisé Fofu, Yoff également sous-préfet Almadi également également pour Cambérène commissaire parcelle pour Yoff ak Ngor commandant de brigade bi ak euh, ak kilifa gi kilifaam gi nga xamné mom la wa wa région bi envoyé and également ak wa Ageroute and également ak wa onance ak autorités sanitaires yi ak wa UCG également suma faté wul kenn ak wa service d'hygiène ak cadre de vie également manam service yeb ak colonel bi nga xam ne moom colonel Diop xamné moy superviseur opération de désencombrement yi ñu and ak ñooñu ñëpp nak ngir mëna def nak visite de site yi xool luy suñuy jafé jafé par rapport intervention service état bi ci yoy yëpp yi ci ëpp solo té gëna bëri problème moy li concerné Agirut ak euh, onance manam assainissement ak euh, travaux routiers par rapport ak ñaar yoyu comme niñ ko doon waxé rek travaux d'entretien courant yi xool nañ ko bu baax vraiment amna na yu commencé amna yo xamné commencé gul mais am ci assurance inshallah, que dinañ ko tàmbali té terminer ko avant appel désencombrement bi inshallah euh, préfet de à disposition en relation avec le colonel Diop, qui est chargé du, des opérations de désencombrement sur axe de voie au Camerouni, et également axe Yoff également par rapport à euh, euh, parking euh, Adama Diop. Désencombrement également, nous avons parking euh, frigo. Bi. je pense que yooyu mooy désencombrement yu yu mag ko incessamment Si nous avons tel def parce que nous avons tel ko nous avons une occupation anarchique donc dinañ ci taxawat inshallah. travaux d'entretien courant Agirut ONAS ñu ne lepp liñ maintenant liñuy faral di wax yi ci document bi laaj dans le cadre du comité de suivi le préfet a déjà pris l'arrêté la mise en place du comité de suivi Nous appel juste rek euh, ba passé ci pour les concerner grand chantier Agirut ONAS euh, ak ak ak également li ci dess moy travaux UCG yi vraiment alhamdullah UCG mom comme ni leen xamé li ñu war mom li ñu war li leen war ci liggéey bi ñu ñu ngi si kawam alhamdulilah euh, yeneen yi des yëpp daal ñu mëna japp né coordination ba baa daw ak service administration territoriale si coordination gouverneur ak préfet way ak service déconcentré yëpp yoo xamné ñom ñoo ci am ay euh, ay ay pàcc si liggéey yooyu ci lool nak ñuy travailler en étroite collaboration ak comité locaux yi bi biñu démé Cambérène Mm, wa maire bi adjoint maire ñëw na fa ànd ak également wa comité local bi pour Yoff également maire bi ci bobom déplacer wu na ànd également ak comité local bi bi xam ne ñoom Baye Seydi Dieng ko diriger bi ñu itam Ngor ñu fekk fi itam vraiment maire bi am ngant xaar nañu sax ba ñu di passé waaye fam jaay ngi fi di représentant xalifa bi waye également gérer lepp li nga xam moy par rapport à comité local bi

au micro de Seydiouar. tey nag ñi ngi wax ci groupe bâche ak suñu nekkin ci group bâche ak taxawaayu groupe bâche ci euh, diine ji euh, di ko commencé ci euh, suñu général Baye Ngine Thiaw ak li ñu dénk yëpp daal ci groupe bâche ñu yor waañ bi muy muy muy muy luñu lu ñu sawar a nekk di liggéeyal doon liggéeyal Serigne Ablaye ak xalifa yi fi jiitu ak euh, suñu xalifa bi ñu fi bi fi bi fi yàlla teg muy Seydina Mouhamadou Mokhtar di leen wax ni groupe bâche euh, ñi ngi ñi ngi fi def nañ fi plus de vingt ans ci waañ bi di ci liggéey te boobaak léegi macha allah amuñu fi dara luñu nakari xalé yu goor yi nga xamni ño yor groupe baax ci seen bop ño yor wañ bi di ci def di jox dépense ñun jigéen ñi ñun tamit luñu am ñu doli ci luñu am ñu doli ci pour mën leen togal parce que liggéey bi groupe baax di liggéey ak membre yi groupe am ci cellule yi muy Cambérène Malika Ngor Yoff okam ba jander bo konté membre yi fi nek ëpp nañ ëpp nañ ay ay ay centaine de personnes lañ té ñëpp groupe baax ño leen di dundal kenn fekku leen ci ñoom ñoo yor seen budget bopp lu mu néew néew néew ñoo ngi soox jigéen ñi di leen ci jàppale parce que li fi nekk ci ay nit boo ko xoolee xam ni budget bi leen war a dundal du lu ndaw te macha allah bañ ko yoree ba léegi ñi ngi jóg di daanu ñaan nga leen xalifa yi ñaanaloon ñi leen fi jiitu ak ki fi nekk ba tey mi ngi leen di topp group basse ñooy ñooy ñooy ndugg fu ñu xam ni membre group basse moo ngi fa dinañ dinañ di nga am looy cotigé pour dundal pour ñu dundal euh, liñ fi nekk ci ci temps muy vingt vingt jours wala vingt cinq jours yi yàlla di ñu suturaal nag boobu ba léegi macha allah góor ñi di cotiser jigéen ñi di cotiser kenn fekk ñu ci kenn fekk ñu ci ku dul bonne volonté yi nga xam ni am nañ ko ci njabootu Seyna Limaam ku mel ni imaam Mouhamadul Mokhtar Baye Ndiin Thiaw di ñu jàppale ñuy ñuy ñuy ñuy jóg di daanu ba tey macha allah. di ñaanal nag képp ku ñuy def sa sa sa alal ci suñu groupe baax gi ñu ngi lay ñaanal nga yokk te yëg ko barki Serigne Ablaye kontaan nañ ci képp ku ñu jàppale groupe rawatina membre yi nga xam ne ñooy dundal seen bopp nag ndax groupe bâche metti na metti boo nga xam ne ku fi nekkul rek mënoo xam li nekk ci biir groupe bâche moo tax képp ku ci def sa dërëm rek ñu ngi lay ñaanal te weesuwul nag membre yi bokk groupe bâche ñoom ñooy cotiser seen bopp di dundal seen bopp macha di gërëm ñëpp nag di ñaanal ñëpp macha allah yal na ñu appel ci jàmm génn ci alhamdulilahi rabbil alamin ñu tëjee li nga xamante ni mooy lancement de l'association des femmes laen bi nga xamante ni ñu doon amal seen panel dañuy seetaan élément bi ñëwaat. qui lance les activités de l'ASFEL a pour thème le rôle de la femme dans la promotion de la paix place la femme au au cœur du dispositif afin qu'elle jouent les premiers rôles qui concourent à la stabilité sociale au regard des profondes mutations telles que l'effondrement des systèmes de valeur, l'utilisation néfaste des réseaux sociaux, la problématique de l'emploi des jeunes et l'interdépendance. À l'analyse de toutes ces questions, il apparaît clairement que chaque nation doit incorporer un projet de société et un idéal de savoir. C'est pourquoi l'ASFEL, dans une vision partagée, simplifie pleinement aux questions de développement face aux enjeux politiques, économiques, idéologiques, à travers des initiatives prometteuses soutenues par une attitude dynamique et prospective. moom teg na ko fi wax na ko fi bàyyi na ko fi léegi jëf yi dong nga ci des ñun nag suñu association bii li ñu gën a bëgg a def mooy jëmmal jëmmal bi nag xëy na amaana dina yomb du yomb waaye ku nekk boo ko tàmbalee ci sa bopp boo amee sa njaboot xiirtal leen ci day yomb ndax dama ne éducation par l'exemple mooy meilleure forme d'éducation bu nit war a mën a def ci njabootam yal nañ ko yàlla yombal ci barke Seydina Limaamu alayhi salaam bu baax. ñooy seetu àddina communauté Layène mooy seetu àddina parce que ñun la yàlla jox ci gën jaam yàlla yi mu indil ñu plan plan boo xam ne nag feuille de boo xam ne nag amul kenn ku ci ku ko ku ci mën a dindi virgule ñun bu ñu royee Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam rek àddina roy ci ñun àddina day baax ñun am amuñu droit à l'erreur ñun jigéen ñi dañu am benn rôle bu primordial bu ñu war a jouer parce que agression mënta ya. weesu nga ñëw fekk say ndaw la ñu toog sol ay yëre yu weex dal nekk ay nit kii nga ñëw sol beneen couleur déedéet nga jël say gànjar yi ya, nga xam ne moom nga amee ci sa ci sa biir armoire yëpp nga takk ko ñooy déedéet nga yokk ay xef yokk ay wee ñëw ne saraax ci biir ay jigéen ñoo xam ne nga ne yéen ñee yéen a bokk pas-pas déedéet bokk leen pas-pas bokk leen pas-pas lu waay di takk takk takk sax boo duggee boo jubee jàmbalaay war a tekkee te loolu dafa bokk ci li nga xam ne moom la Asbel di véhiculé bi ñu taxawal boo xamante ni day ëmb ay jigéenu laayeen waaye nag teg ko ci principe yi nga xamante ni Baye Laye salaam moom la tegoon ndax Baye Laye salaam dafa fonk jigéen xam naa ni ñu fàttali rek ndax ñépp a ko xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy tëj wooteem dani istawsu bin nisaa'i xayran maa ngi leen di dénk jigéen ñi dafa dénkaane jigéen loolu bokk na ci li mu mujjee wax ci xutbatul widaay ba muy teg discours wala constitution jullit ñi bi mu koy teg dafa dénkaane jigéen dénkaane jigéen dénkaane jigéen wax ko ba muy ñetti yoon tëj mission bi baylay ñëwaat commencé ci jigen mom ubbee ci jigen kee dafa tëje ji jigen mom mu ubbee ci jigen bu baax a baax baax baax ci ci ci initiative bi euh, di leen wax rek né euh, nañu engagé woon non la ñuy continuer engagé wu euh, ci sama tour ak touru maire yépp fenaa rencontrer ngeen Seydina maire Yoff rencontre dun également Maguette Benoto ak As bu Kayar donc tous les maires layen mais au delà des maires layen c'est objectif moy rencontrer tous les maires pour que maire yëpp ñu mën leen jàppale ci initiative bi ndax ku jàppale jigéen moom jàppale nga communauté te laayeen fi ñu toll nii vraiment lii dafa am solo ndax am na thématique appel bi mooy mooy l'unité socle de de de stabilité sociale tey bu fekkee jigéen ñi dañu jël ñoom seen taxawaay ci la promotion de la paix dafay gën a am solo. voilà jërë ngeen jëf c'était votre dernier numéro.